Je gën a marqué aussi si équipe nationale moi, moment bi ñu nekk regroupement en préparation avec l'équipe euh, olympique c'était avec Serigne Saliou coach olympique on était en regroupement euh, avec suñu coéquipier Jeux africains lañ doon préparé ça c'était deux semaines avant dix jours comme ça euh, ñu nekk à l' entraînement et tout parce que man sama chambre presque gars yi fa la ñuy nekk ñu toog plané waxtaan foofu après entraînement avant entraînement yooyu yëpp fa la ñuy nekk teg ak suñu ataay yooyu après ñu entraîner un jour ñu entraîner ba pare dem sangu le soir ñu reer ñëw toog si néeg bi déglu suñu musique teg suñu ataay man maay ataay foofu après par la suite euh, Mamadou Salif Ndiaye bi bi yàlla jël ko mu jóge mu ne ma Seydou maa ngi dem sama chambre maa ngi tëdd quoi tey dama sonn après mu dem tëdd après gars yi fa lañ ñoom Sissoko si Sissoko di imam quoi après ñu dem seen chambre tëdd ñu tëdd ver ay cinq heures yooyu fajar bi après mu kii si la ma ñëw fogg quoi si Sissoko ñëw fogg ma ne ma Seydou Zal dafa mel ne am na lu koy tiital moo boobu la ma njëkk wax ma ne ko tiital nu mu demee noonu mu ne ma kaay fekk ñoom ñaar ñoom ñooy bokk ñooy bokk chambre quoi ñoo nekk na woon sinor et ma ma jug yaru mu ne sax laa def ak sama kilote ma dem si néeg bi léegi moment bi ñu egsee si néeg bi nag ñi ngi ko fekk mu tëdd si suuf quoi tëdd si suuf tàlleeku et tout mbàjj bi la bi mu tëddee noonu ma ne waa lii la ma ñëw approché ko jege ko tàpp ko zaal zaal zaal mais dara yënguwul si moom ko affaire bi yéem ma yéem ma rek ma daw woo docteur bi jéeg docteur bi ma daw woo ko mu ñëw après moom mu ñëw xool ma dem woo coach yee coach foofu la nekkoon yee ko moom mu ñëw tamit doc mu xool le temps muy xool man mu ñëwaat aussi xool xool ma sentir ni sa dem na. après moo ne toog kii dem na de toog ne ma bàyyi li ngay wax kii dafay nelaw rek dañ koy dem réanimer après man maa ko yëkkati man ak Sissoko euh, ak Nestor Nestor bi jàmbaar bi nekkoon jàmbaar ñoo ko yëkkati dugal ko si oto doog ñu évacuer ko indi ko fii principal mais man bi mu ko xoolee la sentir bu yàgg nii yi

mais a li limite def rek ñun tamit motivation pour nous, buñu l'action ci si action bi ni mu nous lañ dem fofu yalla suñu borom may lañ ko mais trophée bi ñun mom lañ ko